lu bees ta ta ta lu bees ta yow ku fi indi lu bees ta ta ta lu bees ta yow ku fi indi eh koro famille bi dina neex si si moom dina neex eh koro famille bi dina neex si si moom dina neex xam nga nu muy demee neex wax eh xam nga nu muy demee. Selex wax ni nu muy demee. ci kër gi ak awa góoru këram. dëgg la seen doom bi ci kër gi. di jaay cubu dafa wóor si. bu ma gisee xale bi. loolu doy na waar. eh bu ma gisee xale bi. eh loolu doy na waar. xaritu askan la. eh nga lam xaritu as la. xaritu askan la. moom nga lam xaritu as la. bëre xaritu baay taxaat. mati seen yaay booy. foofu lu fa xew. salaamaaleykum. ah jàmm ndaw. yaa ngi toog. alhamdulilah. ah def jàmm ndaw. ah ba da maa mer li fi xewoon bi xam nga rek bëgg ngeen baax rek. waaw loolu kay ba tax la. ay wasap bi. damaa waa licence. jànq. waaw hmm, xam naa dama mere waaye ñun moom mere nu moom ñu teel wax suñu bëgg-bëgg waaw parce que bëgg-bëgg si lay nekk te doonu mere tamit ñu teel wax lan lay wax suñu bëgg-bëgg waaw ba tax maanaam bu bëggoon waxtaan ak yow jànq bu bëggoon waxtaan ak yow parce que ndoxanum léegi mi gone dañ koo yàq te man bëggatuma dugg si loolu doo ma diglu. waaw maa ngi te yow téléphone nga diglu ma nag li ma lay wax nii ceci est vrai. Eh, du yaa ngi dégg maam lu laa bëgg dama laa bëgg a def ab ñaareel maam ni ko gone yi daan bu njëkk mooy dama laa bëgg si A tontu ma si B bala maa dee <laughs> ay waay bay waay tontu ma bala maa dee bay seey maa ko jaral nga ma mbéj mbéj Yékini mbëkk toy son taxaw Bombardier ne ko ngi bombar jaral nga ma dooy lekk dooy lekk mango lañ daan wax dooy lekk mango ba muy tànk si dooy def dàq lépp loo nekk loolu nga ñëw nekk ak man. yàlla suñu wax dëgg yàlla eh, nii nga am sa bopp ko yow xam nga ne sa bopp xamoo ko. ah yow daan nga am da ngaa bàyyi sa kër sax ndax kër gu tàng dëkk suñu kër gi ndax wul bu sedd yow xam nga du xàmmee yow warul ku la fekk nga toog fi naan damay doon naan la war wax. <laughs> yaa dina sa bopp moom da nga kaa xamul nga def sa kol gi sa kolo bu yàgg bi ba nga fi dikkee ba tey moom nga sopp ah ba nga waaye nag sa bopp moom moom a tas dëkk bi sa ñuulaay bi mu mel ni sa sa jafe toppatoo. ah léegi moom léegi moom gën a dañ naam na woon. ah nga dëgg nag daa yàgg ah, ma def il ma jël sama xaalis bi ko jox naar monsieur Isper. waaw mënul ñàkk ma dem jaay jaay mango baxal